affaire bi li ma wax rek la bañ a yàkkam ci rek tey bu sama album génnee dinaa def def fexe def le tour de la l'Afrique bu uh-huh. mu war a jaar mu jaar fa lu ma ci yàlla may mu jël te xam ni carrière laa yor mu continuer ko tranquillement incha allah. ñu ñëwaat ci Dôme de Paris. Euh, parce que dafay undu rek ak euh, réponse bi nga def léegi waaye naa jamais de pression alors que Dôme de Paris bi nga dund pression dañuy ñëwaat tuuti ci débrief bi nga xam dañuy pare Dôme de Paris ñu mën a dugg ci ci débat Euh, euh, Tange bok nga ci ni fekkee dom de Paris yow lan nga ko jangaté déjà. bon ni ma jangaté dom de Paris bi la première des choses dama gis ni que pour la première fois dans l'histoire de la je ne comprends pas nag quoi. Tange day wax limu mu nga ni ko Tange ñoo fi pour nga ñoo pour poser ay questions. Ah, après nga ñëwaat ni ko Tange moo jàngatee. waaw mais faut poser question question la non faut poser question jàngat question là, quoi dama pour la première fois dans l'histoire de la musique me gis ni que Wally de 2010 à 2023 c'est la première fois mu toog quatre ans duggul Paris Mais c'est le premier artiste africain non sénégalais du moins pas africain sénégalais de jouer ci salle deux fois consécutifs. le 26 octobre 2019 le 10 juin 2023 donc je suis ci travailler travail d'équipe avec le même promoteur ah. tey voilà le dafa dem ba ne promoteur a dafa un promoteur bi daanaam diggante promoteur un seen diggante mm-hmm. man dama dem ba promoteur bi diggante liggéey ak fay ma doxatul suma diggante dëgg la dëgg parce que amul ku may déplacé fii Paris te fayoo ma ma ñëwal dëgg la février bi passé artiste joué na Olympia maa ngi biir Europe ma ne ko temps nga may fay mu ne ma nangam ma toog suma kër kis ma su may jóg soxlaw ma ma ne ko kis ma li nga may fay kon donc dafa am loo xamante ni lu naturel la donc ma gis ci benn jàngat boo xamante ni la diaspora comment ils ont répondu la diaspora a répondu massivement parce que dama jàpp ne tey toxal bi ñu ko toxal mbirum suñu borom la ndaxte dama xam ñu bëri ñoo xamante ni jëndoon nañu seen billet jël seen hôtel ñëw fa te waroon liggéey war leen di te ñëwuñu moo tax ma ne Kisma ñii tey suñ ko tëggoon la trois ñaata nit ñooy des ci bunt bi mhm. est-ce que xeex du am ba ay dee am fi mhm. donc yàlla moo xam li mu def donc jeu dis que man dama ci jàngat benn esprit bu positif lañ demee mhm. li ma ci gën a marqué mooy bi ñuy installé wàccee sono bi di installer lumière yi xameewuñu kii musicien xameewuñu kii manager xameewuñu kii mooy journaliste xameewuñu kii mooy couvrir muy bijou da doon yëkkati ay baaf Qui mi organisé da doon ay mi ñëwoon da doon jël ay fil Qui mhm. di ñëw di branché Caméra tout le monde était à l'intérieur donc loolu que seul un esprit réuni mhm. moi gagné mhm. donc ñun dit dañ ci un un parce que pour le Sénégal donc plus particulièrement j'ai vu l'artiste l'artiste c'est qui on le dit c'est le chanteur du peuple quand on dit le chanteur du peuple le peuple c'est qui Moi je dis pas le peuple sénégalais le peuple je dis c'est le monde entier Il mhm. y avait des Guinéens il mhm. y avait des Maliens il y avait des Ivoiriens, il y avait des Congolais, il y avait des Camerounais. Hmm. Je les ai vus là-bas à l'intérieur. Donc je me dis dit que d'autres fêtes au Sénégal. Donc je crois que tu ben euh, moment là-bas on était parti pour vendre la destination du Sénégal. Et on a vendu la destination du Sénégal. Comme il l'a toujours fait. Hein? Non, on a vendu la destination du Sénégal oh. cette fois-ci. Voilà, Momo Digno, euh, euh, qui m'a dit que je suis Non, même, même, même, même, même, même, même, et on n'a pas vu de pression envers lui. on n'a pas vu de va répondre sur la question. on il va répondre sur la question, voilà. ce côté pression. voilà. Euh, euh, Wally, ces euh, sensation, sentiment, déjà tu préparatif dôme de Paris C'était bien parti, sérieusement parlant. là. C'était bien parti. Quoi qu'on puisse dire. Hein? Quoi qu'on puisse dire. c'était bien parti. Hein? képp ku doon musicien yàpp nga ko ci ni mu waree def nga sa liggéey ci ni mu waree man tamit dafa jël naa sama engagement ci ni mu waree. Mhm. ñu egg si ku ci nekk manager def na la fi mu la a def. Mhm. mu jaga ak statut ñu ñëpp normal c'était bien parti répétition yi tout ça mais dafa am lu ko break. li ko break loolu sentiment yi mënatul nekk lu normal il faut nga am xol bu naqari yi yàlla dogal ñu ñaan jàmm ba jàmm dellu si jeudi affaire yi reprendraat diggante jeudi ak vendredi samedi moo doon affaire bi donc euh, pour man euh, da dafa neexoon ba ci yàgg mu dagg après mu continuer euh, ñu gis la le vendredi wali nga xaw a émotif oui waaw c'est normal parce que. ci ban nga tolloon ba ba ngay tur xewal waaw bi may tur xewal moom wax dëgg yàlla tey ma ko parce que sama xel dafa dem yarax ci sama papa. parce que moment boobu ku jege Wally wala nga mën sa jege staffam xam nga ni coono ngi jaabante rek. Bamba préparé ma bi. day jaabante ak costume bi ah xaa anama fu mu ne. xaa mhm. lum la jox encaissé fii xam nga ñaata billet jaabante. xam nga bés bu mag su amee. rajo préparé ma nga daan gis nit ki même chose. gisoo ko ça fait mal mhm. automatiquement bi may jooy boobu maa ngi way wayam donc sama xel dafa sori sama xel dem ci moom. et bijou jeudi vendredi samedi dafa mel ni dañ ma tegal lépp lu ma coon daan mës a wax papa coon lépp lu ma daan mës a wax dafa mel dañ ko teg suma xel. ci showbiz wala. waaw ci àdduna ni nga nar a dundee. li nga war gis tu vois sama papa généralement su daan wax ak man ci ay télé la ko wax ay rajo xam nga li ma wax ak man face à face ni bëriwul mais bu lay wax day jaar ci digg bi du du am. tergiverse waaw day ci bi donc mais est-ce que est-ce que période daf la daf la euh, daf la parce que ko ko nam wala daf la parce que da nga wéetoon ci situation bi ñu doon wax dafa war a annuler warul annuler ci ñaar yooyu ban la ci. non manquement Papa moom du deñ ci ñun parce que yàlla moo ko dogal te moom mu liggéey ko nag loolu du deñ ci ñun mais li ma doon wax yëpp moment boobu dafa dama ko doon dund. li muy wax ji muy ñëw ngay fàttali ko ay wax li lay wax nga ko dund à à l'instant même. parce que man soo xoolee ñi àndal maguma leen ñoo bokk benn génération ñu ci bëri mat nañ papa ñi mat nañ ma nijaay xam nga ñi mat nañ ma mag ñoo ma jiitu ci aar ah mais ñoom ñëpp ku ci nekk day xool suma mindset ak suma dëgër laay pour mën a tenir je bu ma ñëwee répétition da ngay gis ñi ñi laqatu di joy di la xool di xool naka nga mel mais j'étais bien moi j'étais bien j'ai juste pensé à mon papa. mais c'est si pour moi ci ci pensé ci pensé. ci sa état d'esprit ban instant ak ban parole ak ban waxam moo traversé sa esprit ba nga jooy. waaw dafa dafa am benn wax buy wax mu ne man man dund naa lu nekk ci musique def nañ ma lu nekk ci musique waa ji laaj ko lu tax ñu def la ko mu ne laaj leen ko xawma ma laaj leen ko kan. laaj leen ko dafa ne dafa man dund naa lu nekk ci musique waaw dafa ne dund naa ci musique. lu ne def nañ ma lu ne léegi comme ki wax ak moom moomu ne ko lu tax ñu def la ko mu ne xaw ma laaj leen ko c'est-à-dire ñi def doo xam lu tax ñu def te soo leen laajee lu tax duñ la ko wax. lan nga jàpp ne dañ la def. I don't know beaucoup de choses beaucoup de choses. mais loolu mais loolu ci saa ci ci. moment yi ngay xalaat loolu dafa fekk nga am loo yëg yow ci sa jëmmi bopp avant ngay xalaat si papa dafa yow fekk. c'est tout à fait normal Abba mënu ma fi jógee ànd ak lu toll ci soixante di personnes. Mm. wala lu ko mën lu ko mm. ok ah. ku ci nekk tàggu sa waa kër nga jóg dem responsabilité bi nekk sama dond sama dond lii ku ci nekk dama rendre compte sa famille loolu ci mosoon dal ak loolu mën a dal. waaw wala sama déet c'est tout à fait normal. diaspora bi ku ne jóge fu nekk dagg sa billet jënd say otel soirée waal yi moo gën a metti mhm. dangay jënd yére boo sol boo dee jigéen tu vas dépenser minimum un million mhm. fay hôtel poids la dafa metti mais coon bu la tegee pois ci wax euh, non teguma poids ci wax non non ma ni bu la tegee pois ci wax waaw yenni na la tamit ci wax ban peut-être ban waxu coon moo la delloo si ba nga ni waaw coon a ngi nii waalee ngi nii Euh, parce que dama ko doon dégg tout temps mu ni coon rek a xam coon mais waali rek a xam waali. da koy wax da koy wax dama ko doon dégg tout tout le temps. seul waali kone waali seul waali kone waali mais ban ban moment nga xamee ni wala nga comprendre que ni affaire yi toll na fii waaw léegi. Euh, maa dafa wax dafa wax mu ne waali ma war a porté combat bi. dafa ne waali mhm. su bëggee xool boppam na ma teg ci kanamam. parce que maay miiwaaram comme seetu. ban ci ay waxam moo la dédouané. en quelque sorte moo la dédouané c'est-à-dire moo la il di ñaari wax la ma mës a wax sama papa ñaari la ñu mës waxtaan waxtaan bu sérieux benn bi ci jardin bi la suma juumul ñoom bi ju fekkee nañ ko ñoom njóogu mbay mom ci wax moom wax lu mën ak ci digg bi lay jaar moom waxtaanu waxtaan ñu kawe yooyu benn bi ci avion la nekk mu ne ma waali est-ce que ça va mu ne ko waaw ça va kay ne ma yaa ngi mu ne ko waaw ñuy dem Suisse. waaw ah kon jeex na est-ce que yaa ngi supporter je sais que c'est dur parce que man sa papa xëy na awma jotu baaxoo di chaque fois di la wax ni sama xel mi ngi ci yow wala maa ngi nii yarew ñu ma noonu waaye na nga xam ni maa ngi lay topp même su fekkee sax dama faible mënuma dara nii mais maa ngi lay topp tu vois. am nga lu mu ci tegaat. Ah. ne la. Euh, nit du xeexee kanam di xeexee ginnaaw booy xeex dangay ngay jàkkaarloo ki ngay xeexee donc ça veut dire que waale coup yi day jógee fu ne. waaw benn donc c'est un vieux boo xamante ni lépp lu ma wax tey maa ngi koy dund. bilaa walaay. daag sëñ Tuubaa. mais tey tey Wally euh, euh, <laughs> number one comme ni ñu koy waxee tout le temps nga def li nga xamante ne moom. de Paris ba tey ñu nekk ci trajectoire bi nga xamante ne ci la ñu nekk balaa Karaja duñu may élément bi ñuy dugal ci ligne bi Waly Dioye ñëwaat jàkkaarloog